toogaayu mboolem njabootu ah sunu maam borom tuubaay waaye tooga fi mboolem toogaayu mboolem jullit yépp ci biir réew mi ak ci biti réew mi kon kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la siyaare dila ndokkale di la sargal dila la balu àq bu baax ci coono yi voyage bu sori bi lépp rek di ay coono waaye lépp rek ak ñeewante njaboot kon sa ñëw sa teewaay fii mboolem du ma ne mboolem murid ji waaye damay wax ne mboolem julli ji nekk ci biir dëkk bi yëpp di wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kontaan nañ si buñ ko waxee kontaan nañ si buñ ko waxul kontaan nañ si kon daal ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàgg fi lool te ànd ak wér li nga bëgg lépp ci diine ji ak tariixa bi waaye li nga bëgg si yoonu suñu maam borom Tuubaa yel na yàlla defal lak yàlla gën laa dëgëral yàlla aar la sàmmale ci barki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak mboolem njaboot yi nga àndal yëpp teew fii si biir Brésil waaye rawatina fii si São Paulo naka noonu la jël suñu nuyoog suñu siyaar di ko jox suñu jëwriñ ah sëñ Cheikh Ndiaye mu tasaareel na ko si mboolem njaboot yi nekk ci biir saal bi yëpp naka noonu ah ñuy waxe si suñu ndigalal jëwriñ bu ñu ko nuyoo bu nuyoo kilifa gi rek nuyu sëñ Cheikh jël suñu siyaar nag tekki si loxol ah sëñ Yoro Diop yi nga xam ne moo nekk fii ah jiite mboolem ñi tënku ci kër suñu maam Mawlaay Cheikh Al Hadji Malick Sy nekk fii ci biir Brésil bu nu ko joxee suñu siyaar ak suñu nuyoo dina mat dina matale jiite daayira bi nga xam ne moom mooy daayira ah, soppay nabi kon xaaji Yoro ñu ngi lay siyaare ah, di am mbégte bu baax yow itam ak kontaan waaye di wax ni lii rafet na tabarakallah euh, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum day wax ni lu am rafet bu amul woon ñaaw kon nii la bu dul nii rek di naneen te naneen lu muy doon defe naa ni nii moo koy gën kon ñu ngi seede

lii rek la kilifa mënal njabootam kon ñu daal amuñu si luñ si yokk xanaa doon wax rek ci ndigalal suñu baay suñu jëwriñ sëñ Yoro Diop ah mu wax looñu rek ñuy wax lépp loo xam ne nag lu si jubla ah ñu ngi koy sant borom bi subhanahu wa taala waaye lépp lu ci dëngit ñu ngi koy jéggalu xam ne doomu aadama moo matul xanaa it rek ñu ñëpp toog tàllal la sañuy loxo di la dagaan bu doon benn kàddu nga nu waxit ñu dégg ki jëfe ka bu ëllëg ba nga ñëwaat loolu dolliwaat ñu dégg ko jëfe ko parce que damay wax ni taalu bi moom ndigal rek waaye nag njaboot gi njaboot gi matunu matunu euh, nit yi xàndoor si waar lu mu ñëw ñëw du tee ñu xàccak bu ko defee sëriñ bi dëkk baa ngi nii njaboot yu ndaw rek ñoo fi nekk bu ko defee ñu ngi lay ñaan nga gën noo soññ gën noo xàcc ñu gën a tegu si yoon dëkk bi lëndëm na tar na jafe na waaye nag jullit moom ah boo nekkee ci barab lu mu mitti mitti rek bu mu tax nga jaay sa ngor waaye bul réere yow yaay kan bu ko dexee sëñ bi ñu ngi lay ñaan di la dagaan ci suñu kàddu nga bokkanu rek ñu ñëpp soññewaat ñu tënku si lu jub nekk ci lu neex yàlla suñu borom nekk ci lu neex yonente ba ak suñu mag ñi allahuma salli ala sayidina muhammadi wa sallim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد نبي لمي وعلى آله وشحبه وخديمه وسلم تسليما صلاة وسلاما وبركة تدخلني في خلوب أهل الخيرات جميعا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء خدير الحمد لله الذي يصلي على النبي منتخى المسلم صلى وسلم عليه الله في الآل والشحب ومن والاهم wa amara al-amlaka aidan bisala alaihi syaidan bisalikal hula summa ilaina wajjahal khitaba takarruman wa anfusan ataba fakhumtu khailan maham tisali amri jamili jallaan misali serigne bi ginaaw bi nu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu salam sante bu baax serigne touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasoul di sante bu baax baax yalla sunu borom mi nga xamni moo taw fexal nga yëkkati sa jéego yu tedd yi yëkkati sa jéego yu sell yi jëme ko ci sunu jëm yu ñàkk solo yi nga xam ne lottu nañu lool xeebu nañu lool ci sa kanam waaye bëgg noo dott sa yërmande ak bëgg noo dimbali tax nga yëkkati sa tànk yu sell yi jëme si ko ci noonu loolu noo la ciy ni am nañ ci mbégte mu yaatu lool noo ngi lay ñaanal yàlla sunu borom sees bii nga toogee muy seesu cheikh mamadou fadal yalla nga ci yag lol ta iya and ak wer yene ja ci kilifa yu bax ya amone don ko liggéeyal serigne Fallu yalla nga jëf seen yene iya ba nal say naali bop yeggale iya ko tanu and ko ak yow do ngi jël nuyo cheikh muntaha mbake khalifatu am li taifatu muridiya diko tek ci sa loxo dila ñaan nuyo bobu nga jallale ñu ko ci kilifa gu bax gog nga xamni mo tok cheikh ahmadou bamba ginaaw bi lolou jàlle itam nongi ngi nuyu sa doom tedd yi nek ci sa wet su ma ci tuddee Cheikh Abdoul Aziz ibnu moo Modou Aïssa tudd ci Serigne Alhaji Baara sa moom ndax su ma la tuddee day dugg ci biir tudd ci itam suñu waajur yi nga xam ne ñoo ànd ak yow di la wittali di la jàppale di la sant noo ngi leen di siyaar suñu Alhaji Diop suñu Alhaji Dieng ak sunu bàyyi njaw lii rek war nañoo mat tegtal ni ab murit moom du wàcc mukk ndax noo ànd ak sëriñ bi di ko liggéeyal ba ñu judd ci seen biir waaye ñoom tekkiwuñu seen laxasaay waxtu wu nekk noo ngi ànd ak sëriñ bi di sàkku ngërëm kon nag noo ngi leen di ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa gërëm jéego ñëw yi gërëm jéego yu dellu yi saahiran wa baatinan ginnaaw bi loolu jàllee noo ngi jël nuyoo mbooloo bi yépp di ko teg ci loxol jëwriñ ji nga xam ni moo jiite liggéeyub sëriñ tubaab bi fii muy sëriñ Cheikh Ndiaye di nuyu sëriñ Yoro Diop bi nga xam ni moo jiite njabootu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif gépp su ma ko tuddee njabootu suñu maam Hadj Malick dugg na ci njabootu suñu maam Xali Ahmed ah, suñu maam Khalifa Niass dugg na ci njabootu mbooleem lislaam mbooleem turuxe yi nekk ci réew mi yépp dugg nañ ci sëriñ bi <coughs> murit yi dañoo wax ni naa la wax ne noo ngi sant bu baax mbakke jàmbatuñu dara bi ñu gisee sa jëmm ju tedd yii la suñu xel yépp dal la suñu xol yépp sedd jàmbatuñu dara noo ngi lay seereel njaboot gii sa njabootu bopp gii ci sa kanam dey jàmbutuñu dara di sant rek mbacke di la ñaan nga ñaanal lu ndax serigne fàllu dey ku ne xam na ni amna lu mu defal serigne touba lo xam ni àdduna sépp teg nañ ci seen bët ndax da bind ab kamil jox ko serigne touba adiya serigne bi xol kamil bi ni ko Fadal sa kamil bi wona lol ta rafetna suñu borom neena nga bindal ko ab kamil mu ko yow de dama la jox adiya waye mom nak neko dama koy jaay serigne bi ko koy mu ne ko su ma ko bindee ba ñëw danaa la wax lu ma ko koy ba bindee ba ñëw jox ko Cheikh Ahmad Bamba Niko Niko su ni ko moom kat dama koy jaay ab kaamil loo koy jaayee mu ne ko taalibe bi njëkk suku sukk jëbbulu ci yow ba bi mujjee jëbbulu ci yow bu faatoo ga tabal ko aljana sëñ tuba ne dënd ba yàgg ne ko sunu borom nangul na la loola kon nag képp ku dox ci àdduna amel nga sëriñ fàllu njukkal sëñ fàllu itam doon jëm joo xam ni bëgg-bëggam ak yitteem ak yéeneem lépp weesuwul doon taalibe sëñ Tuubaa la ko waay mas a wax mu ne nañ ko wax borom baraag bii kon nag Mbàkke soo yëkkatee sa jéego yu yii ñëw ko suñu jëmm yii nga xam ni day Mbàkke xeebu na lool ci sa kanam ñu néew kartan lool néew doole lool néew xalaat lool waaye nag na nga xam ni amunu bëgg amu nu bañ noo ngi nii yaa ngi nii sëñ Tuubaa ngi nii Cheikh Modou Fadel la ngi nii loolu ñaanal sa borom danañu ko defal réew mii nga ñëw nag fekk nga fi sag njabootu bopp fekk fi say taalibe yi bopp fekk fi ñoo xam ne kenn ku ci ne ci ñii fi ne xàmmee woo murit xàmmee woo tiijaan xàmmee woo xaadar xàmmee woo laayeen kenn ku ci nekk ci noonu daal yàllaa na ñor ak yonent bi ak sëriñ tuuba ñun ñëpp ñu tàbbi fi saroon nu xamal ni kenn ku ci nekk ci noonu ëmbal na la ci sa ci xolam cofeel goo xam ni mën naa wax fu mu tàmbalee waaye mënta wax fu mu yem jàmbatuñu dara dañuy sant te da ci yaakaar la in sakartum la xasidannakum yéen nag nun mbokki taalibe no xam ne seigne touba gi di ñew ci ñun alal wu len bëgg andi wu len bëgg aw andi wu len bëgg daraaje andi wu len nañu ne bëgg no dimbali kep ak luñu man ta ñak ci suñu bop te bëgg ko lool te xamuñu fuñ koy wuté ñom ñu baxé nako yëkëti ko andi ko fi nu war ko jariñoo kon nak nu xamni ñom ñi dey la seen mam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fall waxon da amon ku ko ñew Cheikh Ibrahima Fall bay dem am ko ne comme faal kii mooy kan ci gone yi mbàkke mbàkke yi mënu ko xeexee diw sa ñetti at ci kër gi de sa laaj bi yàq na ko sëñ Tuubaa laajut loolu ñoom cëggub dugub woo la ñu fu ñu ruus kon nag noo ngi sant yàlla ci bi nga yëkkatee sa jéego yu tedd yi indi ko ci suñu biir sëriñ Ibrahima Khalil de dafa wax ni moom de dafay ñëw ñu ko jiiñ sëñ Fallu te ci sa daraja lay ñaan ak ci sa barke kon nag Mbàkke bi nga ñëwee nee na moom doonatul dara ab taalibe la yaa ngi nii dong yëpp a ngi nii murit yëpp a ngi nii taalibe yëpp a ngi nii seenu bëgg daal mooy aajo yu faju nanu am xéewal nu am jàmm nanu mucc nu am tawfeex sëriñ Fallou de ba mu fi nekkee njabootu Cheikh Modou Moustapha Mbacke di dem di dem di dem di dem ba ñu ko ko dañu fii ak maa fi du dégg ñu ne siggi leen digaale doomi Cheikh Moustapha Mbacke ñun ñii de na nga ñu xoolee doomi Cheikh Moustapha ndax dañoo nekk fii nekk fi ay doxu ndéem te jamono yëpp day at mii ñu génn tàng na lool fi noonu jëm mu jëlat yi ay ca murit fii la nekkoon am na jëmm ju ñu yóbbu Sénégal barki démb am na ko yegg démb Mbàkke bu ñu fa yóbbooti kenn nanu ànd ak jàmm ànd ak xéewal ànd ak sutura te dellu ci dellu ci sago dellu ci tawfeex ami këyit ñibbi fekk njaboot ga ci jàmm loolu daal mooy sunu yitte amuñu geneen yitte jàmbatuñu dara noo ngi sant ndax ba nga ñëwee ci sunu biir toog la aaju yëpp fajandoon ndax yéen day saa nafxin bi laa dara ren sëñ Tuubaa moo ne katabtu fil barri shay'an xaalisan wa bihi xustu la si saaxali lawraaxa wa sax ba yéen moom sëñ Tuubaa noppi seen lépp adduna ak alaxira newoon na ñii ma yàlla boole ñu yor sama sant wii seen wërsëg tënkuma ko seenub liggéey seen ajjana tënkuma ko seen jaamu yàlla Serigne Touba nag jëm la woon joo xam ni kenn ku ci nekk ci noonu taalibe yi war ngaa roy ci moom jom war ngaa roy ci moom fulla war ngaa roy ci moom fayda ba nga dëkk ma ci sa diggante ak sa borom dara du la ko xañ ndax nekk na gabon gee juróomi at yàlla yoo xam ne weeru koor wu jot sëriñ bi wax nañu ni benn xaal la daan yor bu dog jotee mu sëpp loxoom dog ci biir dog kooram bu xëdd jotee mu sëppaat loxoom ci xaal boobee xëdd ngir lan def ko ngir sunna waaye def ko woon ngir lu mën a jëfandikoo te foofee day lam fa lu ko woon mooy jom lam fa wéetlu ko woon mooy ngor lam fa wéetlu ko woon mooy yàlla sunu borom keroog bi nga xam ne tàbbal nañ ko ci am kàmb gu lëndëm nga xam ne keroog ba mu ganee àddina moo wax ca ñu boppam ni danaa jëfal yàlla sunu borom fii ci àdduna lu ko góor mës a jëfal danaa liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lu ko góor mës a liggéeyal lil Mustafa na waytu maa yu jaddidu sunnatahul xara wa inni ahmadu loolu itam suñ tubaa waxu ko dog koo def da koo jëf doo koo wax kon nag mbàkke noo ngi lay xamal ni dong nga moom jegewut fenn sépp a sori fii waaye nag Mbàkke noo ngi lay ñaan daal ñi ne ci saal bii ak ñi nekkul ci saal bi ak ñi ne ci réew mi ak ñi ne ci yeneen réew na nanu am jàmm am xéwal te ñibbi ci jàmm wér nañu de Mbàkke boo ko ñaanee sëñ Fallu mu defal la ko boo ko ñaanee sëñ Tubaa mu defal la ko boo ñaanee koo ko mën a ñaan ci àddina mu defal la ko ndax am nga ko man nga ko sëñ Tubaay sa maam Cheikh bi Faal sa maam Cheikh bi Faal de am na bis mu ñëw di siyaare sëñ Tubaa fekk fa seex Modou Fadal ñu toog di waxtaan sëñ laaj ko ni ko sa waay jii ci biir nga xam ne mi ngi fii ci njaareem àdduna lépp daje na ci moom moo sa waaja nga jébbuloon ca Mbàkke Kajoor lan mooy wuute bi maam Cheikh Rafal ni ko xanaa bi jaaw bi waaye sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor ba day mooy sëñ Tuubaa mii ne fii ci njaareem ba loolu amee ab ndab ñëw ñu indi xéewal sëñ Fàllu jëfandikoo raxasu ba noppi maam Cheikh Rafal war ko ginnaaw ni ko xaj day Mbàkke du bokk ak borom ba mu noppee dem ci sëriñ bi sëñ bi da koo wax ni ko ana xéewal nga jëfandikoo ngeen mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko ni Ibra fall def mu ne ko mom day ba mako joxe dane ma xaj du bokk ak borom seigne touba ne ko ci Ibra fallu mbacke kadior ma day moy Ibra fall mi rek mbacke day te ñaar ñooñu day ñoo la seq soxna mam say Fall Cheikh Moudou Moussa Cheikh Moudou Moussa Cheikh Ibra Fall seigne Fallu seigne seigne touba kon nak no ngi lay ñaan sañ nga tibbi ci wet gu la neex no ngi ni ay ndaw lañu suñu gëtt yi ñu lay xol gëtt yërmande dong la mu waddatan wa rahma li war a dagan ci diggante ab sëy moo dagan ci diggante sëriñ akub dongaam moo dagan ci diggante doom ak waajuram moo dagan ci diggante ku mën a doon mooy yërmande ak cofeel te loolu képp di mbàkke moo nekk fii ñii fi ñëw ñëpp cofeel lañu am ci yow te wóor nañu ne am nga yërmande ci ñun kon nag dimbalinu defal nu tawfeex defal nu xéewal tubaab yii ñu fekk si li ñu yor noo ko moom ndax sa maama leen ko jox nañ ko jël seen loxo fekk leen Touba andi leen ko saahiran wa baatinan ndax loolu rek mooy suñu yitte amunu bëgg nu bañ Serigne Touba rek lañuy ñuy liggéeyal l'islam rek la ñuy liggéeyal te yoonu murid képp la ñuy liggéeyal bu ñu sañoon day lu Cheikh mun Mountakha santaane ca Touba fii la ñuy toog jëf ko ba mu wir nga xam ne sëriñ bi du jot mu yëkkati kàddoom ne waa ñen nañ ma defal lenn nanga xam ne daal mbàkke fii sa njabootu bopp dong fi ne say dooma fi ne say taalibe fi ne say jaam-jaamaata fi ne darul ay teggin nag nit toog ci kanamu kilifaam di ko saabal ay ay jàngoro jàmbatuñu dara sant rek lañuy def ndax ba ñu lu gisee la aaju yëpp fajaloon la jàngoro yëpp saafara woon amuñu bëgg amuñu bañ mel nañu ab néew ci ci kanamu ki koy sang yow daal mbàkk yaay xam fa ngay ragg ak fa nga du ragg boo noppee noo ngi nii loo ñu ñaanal suñ tubaa yàlla na ci wuutu defal la ko saayiran lu baatinan si ibrahima xalil nee na ci sa barke la daan ñaan suñ tubaa di ñu fajal suñu soxla tey nag yaa ngi nii noo ngi nii murit yaa ngi donga yaa ngi nii waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen